الحب اللي عمره ما يشمت asalaamaaleykum mbokki déglukat yi seen mbokk seen xarit pasteur Ahmed Fall moo dellu siwaat ak yéen ci sunu émission kàddu gu sell gi te di leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di dellu di sant yàlla sunu boroom ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist
آه asalaamaaleykum mbokk yi ñuy déglu fii ci sunu programme kàddu gu sell gi seen mbokk seen xarit pasteur Ahmed Fall ak pasteur Balla Konaté ñoo dellu siwaat ci sunu programme bi nga xam ne liñ ci jublu rek mooy jàng ci téere bu sell bi li nga xam ne moom la ñu aji sax ji yàlla sunu boroom baaxee ñuy nuyu nag auditeurs yépp ku nekk ci turam ak santam di ñaan yàlla sunu boroom mu ubbi xol yi ubbi xel yi ba nga xam ni lii ñu fiy waxtaanee mu nekk ay njariñ li am solo ci àddina mooy nekkal yàlla sunu boroom wéetal ko taxaw fi taxawaay boo xam ne ëllëg dana la dalal ci keppaaram pasteur Balla Konaté asalaamaaleykum maaleykum salaam pasteur Ahmed maa ngi lay gërëm di la sant di nuyu mbokk yi nga xam ni yépp dinañu déglu ci émission bi di ñaan rek yàlla wéy di wàccee ay ngëneelam ci kenn ku nekk ci ñun pasteur.
jërëjëf pasteur Balla sunu ñaari émission yi ñu weesu dañ doon jàng ci téere bu sell bi jàng ci kóllëre gu bees gi xaaj bi ñu dippee yahud li nga xam ne yàlla sunu boroom wax na ko mu jëm ci Seydina Isa almasi bi jëmm ju sell jooju digganteem ak yonent yàlla Musa digganteem ak malaaka yi digganteem ak góorug yàlla googu ñu doon wax Aruna mu nekkoon méngale yoo xam ne yàlla sunu boroom méngale na ko diggante jëmm jooju ak ñooñu nga xam ne ñoom laa lim léegi téere bu sell bi di ñuy jàngal foofu martaba bi nga xam ne moom la Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ am yàlla sunu boroom di ñu yee ngir jëmm jooju nga xam ne mooy Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ képp ku dégg lu jëm ci moom képp kuy bàyyi xel ci moom nga xam ban place la ko yàlla sunu boroom teg ak ban martaba ban garaat la am pasteur Balla ñuy wéy nag ci méngale boobu jàngale boobu nga xam ne yee boobu nga xam ne yàlla sunu boroom mi ngi ñu koy yee ma jàng ci téere bu sell bi xaaj bi nga xam ne mi ngi nekk ci kóllëre gu bees gi ñu dippee ko yawut ma jàng ci aaya juróom-ñaar ci saar ñeent fukk ak ñaar ba ci ñeent fukk ak juróom-benn lii la yàlla sunu boroom wax mu ne yàlla boroom bi giñ na te du dellu gannaaw mukk mu ne Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist doon nga saraxalekat ba faw nee na ko loolu nekk na def naa la nga doon ab saraxalekat ba faw émission bi ñu weesu ñu wax li jëm ci saraxalekat bi rawatina nag kenn kooku nga xam ne moo doon Aarona fii yàlla sunu boroom giñ ne sang bu tedd boobu def naa la saraxalekat ba faw waaw lan lañu yàlla sunu borom di jàngal ci wax boobu saar boobu nga xam ne jox nañu ko
waaw jërëjëf pasteur Ahmed am naa yaakaar ni lii ñu yàlla bëgg a jàngal foofu lu am solo la pasteur Ahmed ndaxte gis nañu ko ci waxtaan yu weesu ne saraxalekat yàlla moo koy tànnal boppam Arona tànnul woon boppam du yonent yàlla Musa moo ko tànnoon ndegam sax ñoom ñaar ñoo bokkoon ay waajur ndey ak baay waaye yàlla mooy ki tànnoon Arona ci biir yawut yi def ko saraxalekat waaye ñu gis ni Arona doonul saraxalekat ba faw ndaxte dunduk ad Arona dafa amoon ab dafa am foo xam ne bañ fa àggee Arona dafa génn àddina mu am keneen ku ko wuutu ci doomam yi ñu koy defee noonu bu ñu àggee ci Seydina Isa Yesu Krista yàlla giñ yàlla buy giñ day giñ ci boppam ndaxte moom rek moo nekk moo féetee kaw ne ko def naa la saraxekat ba faw loolu day tekki lenn mooy ne ginnaaw bi yonent yàlla arona demee ñi ko wutu dem ba ñu agsi ci seydina isa yeesu krista yàlla tànn ko yàlla dénk na ko loo xam ni dootu ko joxeeti ndaxte daf na ko def naa la saraxalekat ba faw kon mbir mi jox naa la ko léegi mu ngi ci say loxo dootul deñ ci say loxo arona yore woon na ko bàyyi na ay doomam yoroon nañ ko bàyyi nañ waaye bi ñu agsee ci Seydina Isa kooku moom nag dafa ŋànk mbir yi léegi dootul dañ ci loxoom kon muy won sut bi nga xam ni Yeesu Krista sut na ko Aarona waaye muy wone yeneeni mbir yoo xam ne dinañ ci dellu si pasteur Ahmed waaw pasteur Balla loolu nga wax noonu sax téere bu sell baa ngi koy dëggal ndaxte boo jàngee ci yahud aaya juróom-ñaar saar ñaar fukk ak ñett yàlla sunu borom mi ngi wax naan yeneen saraxalekat yi dañoo bari woon ndaxte dee moo daan tax duñu mën a sax ci seen liggéey waaye yeesu mi dund ba faw sasoo na liggéeyu saraxalekat bu sax ba faw waaw pasteur Ahmed loolu la nag xam nga saraxalekat ci ci yawut yi wax nañ ko fi ci waxtaan yu weesu dafa dox diggante yàlla ak mbooloo mi mbooloo mi bi ñu bàkkaaree ñoom lay defaral ay sarax yuy tuur deret te loolu dafa am solo ndaxte yàlla day wax ni bu deret tuuruwul njéggalu bàkkaar manuta am waaye ñooñu seen liggéey dafa amoon at ndaxte dee day dab doomu aadama ah léegi ñuy dee di joxante lenge bi di dee di joxante lenge bi ba agsi ci Seydina Isa Yeesu Krista diñ ko joxe lenge bi te kàddu gu sell gi wax ñu ñu gisoon ko ci saar bu njëkk ba ci aaya yu njëkk yi ne ginnaaw bi mu ñëwee ba ubbi bunt bi nit mën a jaar ba mucc ci ay baakaaram mu ngi toog ci yàlla wetu yàlla aji kàttan ji kon kooku dafa yore lenge boo xam ni mu ngi dund kon du ko joxe ndaxte li taxoon yeneen saraxalekat yu njëkk yi di joxe lenge bi mooy ne dee da leen doon dab comme kii nag mu ngi dund ba faw toog ci ndeyjooru yàlla aji kàttan gi kon lenge bi mu yor du ko joxe moom mooy wéy di ko yor pasteur waaw pasteur Balla dama bëggoon ñu dellusiwaat tuuti ngir leeralal sunu mbokki auditeurs yi lan mooy euh, solo saraxalekat ci biir bani Israël jamono yu yonent yàlla Musaa ndaxte junj nga ko laal nga ci tuuti sànq dama bëgg ñu gën ci dellu siwaat ndaxte fii yàlla sunu borom mi ngi ñuy won ne kat loolu nga xam ne sasoon na ko bani Israël jàngaloon na leen ko loolu amoon na loo xam ne daf koy firnde lu waroon ñëw ëllëg gën a mat gën a mat googu nag mooy kan mooy Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ ndax solo saraxalekat boobu mën nañ ci waxtaan waat tuuti waaw pasteur Ahmed xam nga yàlla bi mu génnee mbooloowu yawut yi ñuy sëtu Ibrahima biir Misira Égypte andi leen daf leen jox téere boo xam ne ci la ñu war a tënku ngir dund dund gu sell nit ñi gën ko xamee ci yoonu Musa ñenn ñi di ko tënkee ci les dix commandements la nekk ci téere boobu yàlla dafa ne yawut yi dañu war a topp charte yooyu ngir di dund dund gu sell ndaxte nit ki bu dunduwul dund gu sell mënul jege yàlla waaye yàlla de dellu ne moom wóor na ko ni doomu aadama bi bu jant jógee ba ni muy soowee munul toog te bàkkaaru kon mu wutal ko beneen pexe boo xam ne bu bàkkaaree bàkkaar boobu dinañ ko mën a muur ba doomu aadama bi mën a jege yàlla ndaxte warul sori yàlla alors mu wutal leen nit koo xam ni nag ñu tuddee ko saraxalekat moom mooy dox diggante yàlla ak bani Israël bu man bu ma bokkee ci bani Israël ma bàkkaar damay wut mala moo xam xar la moo xam béy la moo xam nag la am na nu ko yàlla tërale ci téere bi ma ànd ko ci waajooju nga xam ne moo dox sama diggante ak yàlla ma teg sama loxo ci kaw mala bi mu rendi mala bi mu am ñaari mbir yu fa am bu njëkk bi mooy ne samay bàkkaar dafa waroon tax ma dee man ndaxte payug bàkkaar mooy dee waaye yàlla wutoo na ma ak mala ma rey nañ mala bi ñaareel bi mooy ne deret ba mala ba tuur mooy deret ba nga xam ne mooy muur samay bàkkaar ba su ma ñëwaatee ci kanamu yàlla man bani yawut bi yàlla du gis bàkkaar yi ndaxte muur nañu ko donc waa jooju dafa amoon solo ndax moom rek moo amoon sañ-sañu def bàkkaar yooyu ndax moom rek la yàlla tànn ngir mu koy def kon mu doonoon rôle ak taxawaay boo xam ni bu am solo la bu am solo la li mu doon liggéey ndaxte liggéey boobu mooy tax mala bi wuttu doomu aadama bi waaye liggéey boobu mooy tax aussi deretu mala bi muur bàkkaaru waaj waaw pasteur Balla loolu ngay wax sax yàlla sunu borom dëggal na ko ci téere bu sell bi ndaxte bu ñu jàngee ci yahut aaya juróom-ñeent saar ñaar fukk ak ñaar ñi ngi wax foofu ne ndaxte ci yoonu Musa maanaam li yàlla sunu borom jàngal Musa daanaka deret la ñuy sellalee lépp te bu deret tuuruwul mbaalum bàkkaar du am fii yàlla sunu borom mi ngi wax ne jamono yooyu kat euh, buntu mucc bi nga xam ne moom la joxoon doomu aadama moom la joxoon bani Israël mooy foog ñuy faw ñuy tuur deret te mi ngi naan wax fii naan euh, loolu mooy firndeel ne bu deret tuuruwul mbaalum bàkkaar munul am waaw xam nga pasteur amee diggante yàlla ak bani aadama ni mu tàmbalee yépp boo koy xool te nga am seetlu da ngay gis ni deret dafa ci am solo ndaxte yow waxoon nga ko fi ci suñu benn waxtaan mooy ni aadama ak awa bi ñu bàkkaaree ba noppi yàlla daf leen woddu ak der te bu ñu ne daf leen woddu ak der li muy tekki mooy ne deret tuuru na am na mala mu ñu rey ngir ñoom ñu mën a muur seen seen seen yaramu nen ñu dem ba ci biir ñu gis histoire ku mel ni Kayin ak Abel ñu gis kii andi li nga xam ne meññeefu suufam la woon mu jébbal ko yàlla kii dem jël ci gëttam rey ko tuur deret jébbal ko yàlla gis nañu ni yàlla finalement ci tuur deret bi kooku la nangu ay saraxam ñoom ibrahima laata yoonu yonent yàlla musaa di ñëw ñoom yi ibrahima nitu yàlla yu mag yooyu jiitu musaa yépp dañuy gis ni ci seen diggante ak yàlla dañu farataaloon di tuur deret ndaxte yëgoon nañu ni deret dafa am solo pour raxas ruuwu doomu aadama deret dafa am solo ngir euh, muur bàkkaar yi nga xam ni moom la doomu aadama di def ba ñu mu ñoom ñu mën a taxaw ci kanamu yàlla ndaxte ñoom yëgoon nañu ni ay bàkkaarkat lañ seet muuruñu seeni bàkkaar mënuñu agsi ci yàlla kon yàlla ci boppam dem ba ci jamono yonent yàlla Musa mu ne lii nag moo am bu deret tuuruwul njéggalu bàkkaar mënuta am ndaxte deret rek mooy li mën a far bàkkaaru doomu aadama moo moo ko moo ko mën a muur da koy muur ca da koy jamono muur yooyu.
jamono yooyu da Voilà.
koy muur faragu ko Voilà.
Euh, pasteur Balla yàlla sunu borom daf ñuy jàngal fii ci méngale yi muy def naan kat Yeesu Christ moomu jëmm jooju moom muusut aaroona Mhm.
te téere bu sell bi dañuy wax ne ci anam yi nga xam ne sarax yooyu dañ ko waroon def am na ci benn boo xam ne bu amoon solo la te benn yoon lañ ko daan def ci at bi te buñ ko daan def dafa yóbbaale bani Israël yépp maanaam ñépp dañ daan taxaw ci biti ci biti kërug yàlla ga aaroona moom dugg ci biir moom képp ci kër gi def sarax soosu sarax soosu moom rek moo ko yayoo téere bu sell bi nag dañuy delloo ci sarax soosu nga xam ne moom la aarona daan def naan kat Seydina Isa almasi bi def na ko mooy Yeesu Christ moo tax mu naan Yeesu Christ moom moo sut fuuf aarona dama bëgg nag ñu jóox foofu tuuti balaa ñuy jóox foofu sax ñu jàngaat ci téere bu sell bi li muy wax ci jëmm jooju di Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ téere bu sell baa ngi ñuy wax naan ah, kon nag yeesu mooy saral xalekat bu mag bi bi ñu soxla dafa sell du def lu bon te du bàkkaar bokkul dara ak bàkkaarkat yi te yeggee nañu ko fa yàlla niroowul ak yeneen saraxalekat yu mag yi soxlawul di def bés bu set ay sarax mala ngir bàkkaari boppam jëkk téere bu sell bi mi ngi def foofu benn méngale nee na Seydina Isa almasi boobu ku selloon la Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ ku selloon la rax ci dolli amul woon bàkkaar nee na loolu moo tax mu mat mat gi nga xam ne mënoon na dugg ci biir bërëb bu sell sell boobu def ab sarax soo xam ne moom moo ëpp solo fuuf moo gën a rëy fuuf sarax soosu aaroona ak ñeneen ñi nga xam ne bokkoon nañu ci njabootu aaroona daan def
waaw pasteur Ahmed ni nga ko waxee noonu la euh, xam nga euh, Arona bi ko yàlla tànnee bani Israël yàlla daf leen waxoon ñu tabaxal ko kër goo xam ne fa lañ koy jaamu wax nañ ko fi benn ci suñu waxtaan yi kër gi ñu mënoon ko xaaj ñetti xaaj ñetteelu xaaj ba doonoon bërëb ba nga xam ne mooy bërëb ba gënoon a sell te ni nga ko waxee aroona rek muy saraxalekat bu mag bi moo amoon sañ-sañu dugg ci bërëb boobu te benn yoon ci at na la fay dugg te ba fay dugg day rey mala ngir ay bàkkaaru boppam ba noppi soog a rey mala ngir bàkkaaru mbooloo mi yépp ndax moom matul woon moom matul woon ndaxte moom aroona dañu ko tànn ci biir yawut yi te muy doomu aadama di yaw donc di bàkkaarkat Yeesu Krista ñu tànn ko ca bërëb ya gën a selle fa yàlla aji kàttan gi nekk kon xam nga déjà ñoom ñaar duñu benn pasteur amet donc bërëb boobu aroona doon dugg di fa yóbbu deretu mala ba daf ko fa doon yóbbu ngir mbooloowu yawut yépp waaye li am solo fii mooy ni deretu mala la fa doon yóbbu te te Seydina Isa Yeesu Krista ba mu fay dugg dinañ ci dellu si dafa yóbbu leneen lu wuute ak deretu mala pasteur te rax ci dolli dafa yóbbaale ñu bari danaan ci dellu si ndaxte fii téere bu sell bi dañuy wax ne aarona bu daan dugg ci bërëb boobu bani Israël kese la yóbbaale jëmm jële nga xam ne nag moom la yàlla sunu borom yónni muy Seydina Isa almasi bi Yeesu Krist nag moom mbooloo mi muy yóbbaale ci la ñuy waxtaan ci ñaareelu xaaj bi pasteur Balla yàlla sunu borom mi ngi ñuy wax ci téere bu sell bi ci xaaj bi ñu jagleel yahud ci aaya juróom-ñeent saar fukk ak benn ba saar fukk ak juróom yàlla sunu borom di wax foofu ne waaye Christ ñëw na doon saraxalekat bu mag bi joxe xéewal yi teew jaar na ca màggalukaay ba gën a mag te gën a mat te màggalukaay boobu loxo nit defaru ko maanaam bokkul ci àddina si noonu Christ dugg na benn yoon ba faw ca bërëb bu sell bu sell ba dugg fa ak deretu siket yi ak yu yëkk yi waaye mi ngi duggaale ak deretu boppam te indil nañu jot ak mucc gu amul àpp
waaw pasteur Ahmed euh, ni ko aaya bi waxee noonu la xam nga euh, Arona parce que moom la ñu nekk di wax moo ko moo Christ euh, fi mu daan dugg bërëb bi mu daan dugg di fa yóbbu deret bi ngir mbooloowu yawut yi ni nga ko waxee sànq bërëb la boo xam ni ñoom yawut yi ñoo ko tabaxal yàlla waaye yàlla dafa waxoon yonent yàlla Moussa ne ko bërëb bi dama bëgg nga tabaxee ko exactement comme modèle bi ma lay wax dafa dafa am bërëb boo xam ne mu ngi ci asamaan ci ci yàlla yàlla bëgg Musaa tabax bërëb bu xaw a mel noonu fii ci kaw suuf ngir Aroona di fa dem yawut yi di fa dem di ko jaamu alors at yooyu yépp ñoom noonu lañ doon def mais léegi gis nga li aaya bi wax dafa ne bi Christ dafa dugg ci bërëb boo xam ni loxoy doomu aadama defaru ko te nekkul ci àddina si bokkul ci àddina si fa mu dugg bokkul si àddina bokkul ci àddina si alors àddina si nag lu ci bokkul rek yàlla la lu bokkul ci àddina si parce que loolu moo fi am yàlla bërëb ba yàlla nekk ak àddina si bu nekkatul ci bërëb bi ci àddina si mu ngi ci bërëb ba yàlla nekk foofu nag la Christ dem mu yóofu fa deret boo xam ni aaya bi wax na ko du deretu sikkat du deretu yëkk yëkk du deretu mala deretu lan la deretu boppam deretu boppam xam nga pasteur Ahmed bu njëkk yàlla bu mu waxee yawut yi ne bu ñu baakaaree nañu tuur deret wax nañ ko fi sànq deret boobu da doon muur baakaar yi ndaxte ruuwu doomu aadama nag wax dëgg yàlla moo gën a foor bakkanu mala kon bakkanu mala mënuta jot ruuwu doomu aadama ndaxte ruuwu doomu aadama moo ko ëpp valeur kon li yàlla doon def ci jamono yu njëkk yépp da doon muur baakaar yi di xaar valeur bu toll ni wala bu ëpp valeur ruuwu doomu aadama ngir loolu bu ñëwee mu mën ko jotee doomu aadama loolu nag mooy deretu isa ibnu mariama yeesu krista deret boobu la tuur muy deretu boppam di deretu nit ku sell di deretu doomu yàlla ji di deretu ku amul benn bàkkaar mu dugg ci bërëb bu sell ba fa yàlla ca boppam toog loolu la téere mu sell mi wax ngir àndil yàlla deret boobu te deret boobu bi mu ko andee nag am na leneen lu mu wuteeg deretu arona ya arona doon andi pasteur amet ndaxte wax nga ko sànq arona moom ñamu bootoon moo doon mbooloowu yawut ya ñooñu la bootoon waaye seydina isa yeesu krista dafa boot lépp loo xam ni bani adama la pasteur amet waaw ndaxte pasteur Ball téere bu sell baa ngi ñuy wax yàlla sunu borom mi ngi ñuy wax ne euh, deretu yeesu moomu amul sikk yàlla sunu borom mi ngi ñuy wax foofu ne kat deret ji nga xam ne yeesu seydina isa almasi bi tuur na ko indi ko ci bërëb boobu nga xam ne nekkul ci àdduna deret jooju amul sikk dafa mat sëkk amul sikk pasteur amet ndaxte ki ko tuur amul sikk amul sikk ndaxte ki ko tuur mooy aji sell gi amul sikk ndaxte ki ko tuur mosul tooñ yàlla du ci kàddu du ci xalaat du ci mébét kon amul sikk ndaxte ki ko ànd ci boppam dëgg-dëgg amul sikk te gis nga nag deret ba daf ko yóbbu ba fa yàlla ca boppam nekk yàlla ca boppam saytul ko boppam xoolal ko boppam ne ko lii nag moom wax dëgg yàlla mën naa ko jëriñoo ngir sellal ruu doomu aadama yi ndaxte gisuma ci benn sikk moom pasteur Ball téere bu sell baa ngi ñuy jàngal firnde bi nga xam ne moom la ñu yàlla sunu borom wan ne kat deret ji amul sikk deret ji nangu naa ko sarax si nangu naa ko mooy bi mu ko dekkilee ñetti fan bi mu nekkee ci bàmmeel yàlla sunu borom ne danaa ko dekkil mu dekkil ko mu ñëw ci sunu biir wan ñu boppam mu doon firnde bi yàlla sunu borom jox doomu aadama wan ñu kat ne deret jooju mooy deret ji nga xam ne amul sikk deret jooju mooy deret ji nga xam ne mën nañu musal loolu moo tax téere bu sell bi di ñu wax naan ñu kon deret jooju moo ñu mën a sellal waaw pasteur Ahmed li nga wax loolu mooy dëgg ndaxte ci kàddu gi lañ ko tibbee xam nga euh, Arona génn na àddina mu ngi ci bàmmeelam tëdd te moom moo daan def sarax yi moom moo daan andi deret yi waaye deret yooyu dafa amoon sikk li nga wax lu am solo la pasteur amee ndaxte Yeesu Krista Seydina Isa dafa dem ci kanamu yàlla ñun la fa demal lam fa yóbbu du deretu mala waaye deretu boppam la ba mu agsee ci kanamu yàlla yàlla ne ko lu la andi mu ne ko dama ñëw ngir jot ruuwu doomu aadama yi nga xam ne dañu bàkkaar yàlla mu ne ko ndax yor nga njëg ba mu ne ko mu ngi nii sama deret a ngi yàlla saytu deret bi gis ni amu ci benn sëkk yàlla ne ko kon mën naa ko nangu valeur bi baax na mot na ngir jot ruuwu képp koo xam ni nangu na bootu ci sa ginnaaw mais loolu bu amee te ameewul ci àddina si ndaxte loolu la aaya ba wax ca bërëb ba yaa Yeesu Krista dem ak deretam nekkul ci àddina si kon mu nga amee fa yàlla nekk loolu ba fa amee c'est normal yàlla ne ko comme ñëw nga xool naa li nga andi gis naa ni baax na delluwaatal ngar ñi nga ñi nga fi teewsal mën a gis ne li nga andi baax na yàlla dekkal ko mu dellu si ci àddina ne man maa deewoon man maa tuuroon sama deret man maa demoon ci kanamu yàlla yàlla nangu na sama sarax firnde baa ngi ni dellu si naa ndaxte nag pasteur am na gisagu leen benn yonent bu dem dellu si kon bu ma demee dellu si rek yàlla nangu na la ma doon dox pasteur Ball may dëkkal loolu nga wax da nga xam ne yaa ngi ko tibbee ci téere bu sell bi ndaxte Seydina Isa almasi bi biñ ko daajee ci bant bi nga xam ne ruugaa ngi yéeg maanaam ruugaa ngi dem dafa am baat bu am solo bu mu wax baat boobu mooy lépp mat na dafa ne lépp mat na téere bu sell bi di ñu wax naan loolu tax na mu nekk ràmmkat bi ci wàllu kóllëre gu bees gi ci diggante yàlla ak nit liggéey boobu mu liggéey ak sarax soosu nga xam ne def na ko ngir doomu aadama ngir far bàkkaaru doomu aadama jox na ko martaba boo xam ne mën na taxaw taxawaayu ràmmkat diggante nit ak yàlla doomu aadama ak yàlla kon bi mu génnee ci liggéey googu cër googu la ko yàlla sunu borom jox waaw pasteur Ahmed cër googu la ko yàlla jox muy cër gu am solo ndaxte nag euh, téere bu sell bi moo ko wax mooy ne ginnaaw bi Yesu Christa liggéeyal liggéey boobu yàlla ci boppam dafa wax ci téere bu sell bi ne maa ngi bëgg nag ngeen xam ni mooy ne benn yàlla moo am mooy man waaye it benn rammukat moo am ci diggante yàlla ak bani aadama muy Yesu Christa mu jub ma loolu la téere bu sell bi wax donc li ko dalee ci waxtu boobu ba ci keroog àddina di tukki képp koo xam ne bëgg nga ñu ràmmu la képp koo xam ne bëgg nga àgg ci yàlla ci suñu borom amuloo beneen pexe lu dul nangu sarax soosu nga xam ne Yeesu Krista suñu borom saraxe na ko boppam tuur deretam ndaxte deret boobu rek moo la mën a sellal ba yow nga àgg ci yàlla suñu borom bu njëkk wax nga ko fi pasteur Ahmed li aarona doon def yawut ya ñoo taxoon mu koy def waaye li andi seydina isa yesu krista du pour yawut yi waaye àddina si yépp la yow ci nga bokk man ci laa bokk chinois bi ci la bokk américain bi ci la bokk vietnamien bi ci la bokk képp kuy doomu aadama yàlla nee na benn yoon moo am léegi pour agsi ci man mooy yoon bi jaar ci seydina isa lu tax ndaxte moom moo andi deret bi nga xam ne bi ma ko saytoo ba noppi gis naa ni amul benn sikk pasteur amet jërëjëf pasteur Balla kon mbokki auditeurs yi ñu mën a jàng foofu ñu mën a dégg foofu ne yàlla sunu borom bu ñu gisee ne mi ngi méngale Seydina Isa almasi bi jëmm ju tedd jooju ak aarona ak sarax soosu nga xam ne aarona daan na ko def ak deret ji nga xam ne jëmm ju tedd jooju tuur na ko ci bant bi dafa nekk ab misaal bu yàlla sunu borom wonoon nit ñi ne leen misaal boobu kat bu ëllëgee danaa indi loo xam ne nag moom mooy lu mat li danaa indi loo xam ne loolu mooy wéy ba faw te lu mat loolu loolu nga xam ne mooy wéy ba faw loolu nga xam ne léegi amul dara luñ ciy tollamti moom mooy Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ ak dara jooju nga xam ne tuur na ko kon ñu jàpp foofu pasteur Balla ne ci loolu yàlla sunu borom di ñu jàngal mi ngi dëggal mi ngi biral ne kat jëmm jooju di seydina isa almasi bi yeesu christ moo yéeg ci bant bi moom moo faatu ci bant bi amul keneen koo xam ne faatu na ci bant bi waaw pasteur Ahmed loolu dafa dafa am solo ndaxte jàngale yàlla yépp waxu yàlla yépp ci téere bu sell bi mu ngi tënku ci niñ ko waxee sànq bu deret tuuruwul njéggalu bàkkaar manuta am te il faut mu doon deret boo xam ne amul benn sikk kon ñaar moo am bu day Seydina Isa deewul ci banta bi kon deret tuuruwul te bu dee deret tuuruwul yàlla nee na njéggalu bàkkaar amul kon sànku nañu ñun ñëpp bu dee keneen lañu daajit ci banta ba deret ba ñu tuur baaxut sellul sellul sellul waaw te bu dee deret ba sellul même résultat la rek amul benn njëriñ ñu ngi ci suñuy bàkkaar ba léegi waaye cant ñeel na yàlla ndaxte yàlla giñ na ci boppam yàlla mu ngi biral ci téere bu sell bi ni ci lu amul benn sikki sàkk Seydina Isa moom lañu daaj ci banta bi moom moo taxaw ci kanamam ak deretam bu sell ba moom la dekkal ñetti fan ginnaaw gi te moom mooy yoon bi nga xam ni ci la doomu aadama yi mën a jaar ba mën a ba mën a mucc euh, pasteur Ahmed euh, di wax rek ni lépp xajul ci waxtaan ah waaye li ci des dinañ ci dellu si pasteur Ahmed waaw kon mbokki auditeurs yi ñu doon déglu ñu leen ni fàttali lii nga xam ne lu am solo la ndaxte sunu ëllëg mi ngi jàpp ci loolu sunu ëllëg mi ngi wéy ci loolu mooy yàlla sunu boroom samp na seydina isa almasi bi yeesu christ mu doon sarax si nga xam ne mooy far sunu bàkkaar yàlla sunu boroom soob na ko mu def jëmm jooju muy rammukat bi nga xam ne moo dox sunu diggante ñun doomu aadama ak sunu matadi diggante ñun doomu aadama ak yàlla sunu boroom bi nga xam ne dafa mat soob na yàlla sunu boroom mu jël jëmm jooju wàccee ko ci biir àdduna ci anam yu sell anam yu set mu doon koo xam ne ku mat la mu def ko ab saraxalekat def ko ab sarax ngir képp koo xam ne jël nga sa yaakaar jébbalu nga ci moom jox nga ko sa bopp nga mucc nga dugg ci yoonu jub te nga jot yàlla sa boroom ba faw kon mbokki auditeurs yi fii la ñuy yem ak yéen te di ñaan yàlla sunu borom mu ubbi xol yi ubbi xel yi may ñu dégg-dégg ba nga xam ne lii nga xam ne njariñ la lii nga xam ne mooy defar sunu ëllëg ah buñ ko ñàkk teggin bu mu ñu raw nañ ci bàyyi xel Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ moom mooy ki nga xam ne moo ñu mën a ramu mooy ki nga xam ne moo ñu mën a musal yal na leen yàlla sunu borom barkel yal na ay yiwoom di wéy di wàcc seen kaw ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ amin mbokki déglukat yi fii la ñuy yemale sunu émission maa ngi leen di sant ci déglu bi te di leen fàttale sunu téléphone di 77 074 35 35 yàlla na yàlla sunu borom wéy di leen barkeel tey wàcce ay yiwam ci seen kaw ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ mën ngeen jokkoo ak ñun ci 77 074 35 35.